askan bi yëpp wax suñu xalaat ci loolu yëpp wax la ca nekk yëpp wax aussi yem sa nga xam ne nañ fa mën a yem donc loolu daal laa leen ko mënoon tënkal ci gàttal. la mooy état du Suprême ah, loolu am na loo xam ni jaruta laajte parce que Ousmane dafa nekk nit koo xam ni nit ku dëgër la euh, c'est un homme de principe c'est un homme ferme. c'est un homme qui est psychologiquement très fort maanaam euh, li xew ni yëpp dara jaaxalu ko ci parce que taxawaay bi mu am moo waral loolu donc loolu amuñu lenn luñ ciy xalaat euh, ci wàllu wér-gu-yaramam itam ngeen jàpp ni mi ngi wér-gu-yaramam yëpp loolu aussi amuñu dara luñ ciy xalaat ah fan nañ ko bàyyi nag incha allah nañ ànd ak ñëpp topp mbir mi. Euh, ko waaw loolu yaakaar naa ni moom mooy li ëpp solo ci li ñu jàpp tey xam ngeen fan yi yëpp ñu génn dinaa ko bamtuwaat sax ci tubaay tubaab da ngay dégg nit ñi di wax naan eh, àtte nañ ko kañ nañ koy jàpp nit ñi di ko werante nit ñi di ci àddu waaye ci wàllu yoon yoon la mu wax mooy il faut nit ñi xam ni àtte bi nga xam ni mooy àtte contre Max du àtte dafa nekk àtte boo xam ne dañuy bañ su ab mbir xewee da nga xam ne dañ ko war a topp ci benn diir balaa diir bi jeex ñu am pexe boo xam ne nañ yokk diir bi ba tax na yoon nee na su fekkente dañ laa àtte contumax suñ la jàppee rek àtte ba yëpp nen na euh, beneen euh, décision bu ñu tegi woon itam nen na kon boo ñen pour ñun àtte boobu ñu ko àtte woon ci wàllu contumax te loolu bëral nañ ko pour ñun àtte boobu amatul il faut que loolu mu leer donc pour que nul n'en ignore mhm. et c'est un aspect qui est extrêmement important vous savez euh, la procédure qu'est la contumace dont beaucoup de personnes parlent et ne maîtrisent pas toujours les arcanes n'a pas pour objectif de poursuivre une infraction elle la pour objectif d'empêcher l'action de l'action c'est-à-dire l'écoulement du temps au terme duquel, si une infraction n'a pas été poursuivie, elle ne peut. C'est la raison pour laquelle, dans cette même logique, la loi considère que si la personne qui fait l'objet d'une condamnation par contumax est arrêtée, la condamnation, les décisions qui en sont la suite sont anéanties. Donc pour nous aujourd'hui, avocats de Ousmane Sonko. Nous considérons que cette décision n'existe plus dans l'arsenal juridique. Elle est anéantie du fait de la loi. Ça également, c'est extrêmement important que vous puissiez le retenir. Et donc, en aucun cas, M. Ousmane ne saurait être retenu du chef de ce jugement. Je vous remercie.